la CIRN à travers le ministre de de de de de la pêche jox na d' abord ay CLPA yu nekk Sénégal yëpp jox nañ leen ay gaal. permettre leen pour que nga xam ne su nekkee dafa am seen zone. benn accident gaal yooyu lu ñu jël pour dem euh, sauver ji euh, secourir gaal yooyu. en même temps tamit la CIRN tamit à travers aussi des institutions de son excellence le président Macky Sall euh, fexe nañ ba aussi dans les îles du Saloum comme à à Fambine et puis aussi dans le Fouta fexe nañ ba yóbbu nañ fa au moins une trentaine de yoo xam ne de qui permettent euh, élèves yi ak euh, askan wi di mën a traverser les fleuves ou bien euh, les tout ce qui est les bras de mer en tout sécurité ñun tamit loolu la ñu si lool lañu nekk. maintenant phase bi ñu toll nag léegi dafa fàll phase boo xam ne naka la ñuy fexe ba acquisition bi mun a gën a gaaw te loolu nag mooy financement bi financement bi lañ nekk te état son excellence président Macky Sall am na vision am na yéene ba jël un milliard et quelque. andi ko ci seen